gan gi euh, monsieur le ministre euh, nekkoon itam ambassadeur Amadou Tidiane Wane euh, la ñuy àndal ci waxtaan wi ñu ngi lay nuyu. Ah, maa lay fay. soxna Fatou. ñu am mbégte dalal ci réew mi FM tey tàmbale waxtaan wi nag euh, ni ko actualité bëggee li gën a fës tey di mbiram Mali ak daan yi CEDEAO teg ci ndoddam am na ay fan waaye démb googe kuréel dafa wax ni ubbiku na ngir ay waxtaan euh, waaye itam tàmbali na wala noppi na ngir jàppale euh, Mali ba yoon dellusiwaat fa jaare ko ci ay élection yu wóor waaye itam ci diir boo xam ni bu xel mën nangu la ban jàngat nga def ci bi taxawaay bu CEDEAO mujjee am démb gannaaw li mu yëkkati ni daan teg ko ci Mali. Euh, jërëjëf euh, soxna Fatou ci laaj bi laaj bi am na solo nga may ma balaa may tontu ci laaj bi ma jaale réewum Mali bi nga xam ni njiit ba fa nekkoon Ibrahima Boubacar Keita ñu koy dippe IBK euh, yàlla sunu borom woo na ko fa moom ñuy jaale waa Mali yëpp. di jaale ñi mu àndaloon ci langu politique bi euh, di jaale ñi nga xam ni tey ñoo jiite Mali jiite transition bi di ko jaale itam euh, africain yëpp yàlla na ko yàlla yërëm mm. euh, baal ko ay bàkkaaram te xare ko àjjana mm. ñu ñëw ci laaj bi maanaam li nga wax ne CEDEAO mel na ni dañu ubbi seen bunt mm. ngir indi waxtaan bu bees ñu koy sant yàlla li may njëkk a wax moo di ne ñun de ci sumu réew saa yu dëj bu mag amaan hmm. ay nit dañuy gisewaat suñu gisewaatee xol yi tooy waxtaan am maa ngi ñaan yàlla kon ci fan yi dëj yi ñu nar a nekk ci Mali politiciens yeek société civile beeg ñépp gise waxtaan ci seen biir am taxawaay bu bees ku nekk xam ne loo jàpp am na loo war a bàyyi ngir jàpp leneen lu ko gën ci biir loolu CEDEAO bunt bi mu ubbi daf ko war a yaatal ah, xam nga euh, réew jiite ko yombul te tukulóor yi am nañ kàddu ñu ni oom xool du oom ba ñu koy mën a bank ñi jiite Mali munoo ñëw rek xëy xëy ne leen waaw kay da def nangam da def nangam da def nangam te ñoom ñuy dund li ñuy dund xam yan yoon ak yan pexe la ñu war a mën a tëral ba génn ci guute bi nga xam ne réew bi nag yàgg na ci. Mm-hmm. réew maa ngi ci guerre. Mm-hmm. réew mi daanaka euh, armeem attanatul réew mi ci boppam. Mm-hmm. ñu ngi jéem a réorganiser pour defar euh, defaraat état bi parce que état bi dafa màbboon complètement organiser état bi réorganiser langue politique bi. balaa ñuy mën dem ci ay élections. Hmm. kon nañu leen gunge dëgg la transition juróomi ak gudd na dañu ko war a wàññi mais loolu ay waxtaan moo koy régler hmm. euh, banque euh, loxo du ko régler euh, toroxal leen du ko régler surtout que ñun nag ñun waa Sénégal moom suñu taxawaay daf ci war a maandu lool li tax moo di ñun ak Mali benn réew lañu duñu ñaari réew. Hmm. tubaab yi ñoo toog ca Berlin dessiné seen i carte rëdd ne nii fii la nii fii la mais Sénégal da nga fiy fekk ay ay nit ñoo xam ne ñii ñu ngi bokk ndey ak baay ci ñoo xam ne ñu ngi leen jox carte dante Mali wala ñu bokk ndey ak baay ak nit ñoo xam ne ñu ngi leen jox carte d'identité Mauritanie wala Gambie li tubaab bi defoon ba tey te ñu tënku ci te ba léegi nanguwuñu ko teggi teg lu bees loo xam ne di ñun ñoo ko bëggal suñu bopp doxal ko moo ñu indil lor yi le mhm. kon maa ngi ñaan waa Mali ñu seet naka la ñuy toogaatee lu mu gën a gaawee ci taabal waxtaan tëral ay pexe tëral programme boo xam ne bii transition bi dana leen ne waaw dootul juróomi at wante ci ñaari at ñaari at ak genn wàll mën nañu sottal mbir yi. Mhm. ñu def ay élection jox ñi nga xam ne ñii peuple malien tànn na leen waaw. Mhm. su ma la déggee am nga yaakaar lool ci mbir meek ni mu mën a jeexee waaye ndax jàpp nga ni CEDEAO daan yi mu jël amutoon yeneen yu mu waroon a jël bu ñu gisee njeextal yi mu am ci réew yu mel ni Sénégal. moom kay gis nga Afrique yëpp yuuxu bi benn la ñëpp yuuxu bi ñu génnee seen dogal yooyu Afrique yëpp yuuxu waxuma la Afrique mais Afrique de l'Ouest moom euh, seize états wu CEDEAO yi ñëpp yuuxoondoo euh, euh, parce que li ñu tëral daan yi ñu teg peuple malien lay njëkk a lor dëgg la autorité transition yi danañu loru mm-hmm. mais ñi njëkk loru moo ka daan jaay keccax di dem di jaay ka daan jaay cuub di indi Sénégal transporteur bi nga xam ne bii dafa daan jël marchandise di dem di ñëw di daan seen doole seen ñooñu ñëpp ñi nga xam ne ñi ay nit lañu seen xëy aju ci diggante Mali ak Sénégal na ratax ñooñu ñooy gën a loru mm-hmm. alors su loolu amee doo toog ci bureau nekk ay chef d'état sore lool yenn saay li askan bi du dund ci seen ci seen poche ci seen gafaka bés bu nekk Euh, euh, ngeen yeewu rek ne dañuy tëj fii dañuy tëj fële mais soo leen tëjee ñi muy lor ak lii dal ci seen kaw ni mu mettee soo leen ko nattoon daa leen xam ne tëj bi loolu mooy solution. Mm-hmm. alors mm-hmm. dañuy waa Afrique dañu tàmm di waxtaan mhm. nañu waxtaan mhm. ñu gis ni kon euh, CEDEAO kilifa yi fa nekk dogal yi ñuy jël duy méngoo yenn saay ak euh, yi askan yi Afrique yi bëgg est-ce que lii euh, diplomate bi nga nekk ambassadeur bi nga doonoon jàpp nga ni mën naa jur ay crise diplomatique ci réew yi waaw crise moom am na ba pare crise am na moo di nga ngeen jël dogal non seulement seeni askan mer ne ànduñu ci mais li conséquences yi ci nar a topp moo nar a gën a indi encore ay coono. moo tax euh, nañu daw bi ñu ami tànk nañu daw bi ñu ami tànk parce que su fekkente ne lii euh, continuer na ay weer danañu dem ba gis ne euh, lii yàqu ci réew yi defaraat ko du yomb. am na loo xam ni kenn du ko bàyyi mu pourrir situation yoo xam ni kenn du ko bàyyi mu pourrir mm. mais gëm naa ne Euh, ginnaaw bi chef d'état yi defee seen dogal diplomate yi nga xam ni seen métier mooy dox jàmm mooy gérer conflit jóg nañu sol seeni dàll dugg ci ruq-ruqaan waxtaan ngir indi jàmm mhm. ñu wax euh, ci loxol France yi nga xam ne itam noppiwuñu di ko gis ci ginnaaw CEDEAO mhm. saa yu mbir yu ni mel jógee Guinée loole lañ fa waxoon Mali gi itam ba coow li tàmbali ba tey France dañuy gis ci ginnaaw yow itam booba gis-gis nga am ci mbir mi xam nga gis-gis loolu mënuñu ko ñàkk gis ndax euh, France bi aw defee dogalam teguñu ci ñaari fan sax mu tàccu. Hmm. loolu moo di ne ñu ngi ko doon xaar. loolu moo di dafa euh, seen ñaan bu dajeeg amin la. Hmm. donc euh, mënuñu leen mënuñu bañ a ñaaw njort ci seen taxawaay du d'autant que ñoom seen armée ñu ngi ay at ngi nii ñu ngi ñu ngi Mali. neewoon dañu ñëw pour xeex jihadistes yi te bañ ñëwee ba léegi jihadistes yi seen doole dafa yokk kon. mën nañu commencé nag di ne waaw yéen da ngeen am ay ngànnaay ne ngeen geer ay ngànnaay ko yor indi ngeen ay ngànnaay yéen ñu ëpp ay ngànnaay ñoo ngeen fi ay ati ati ati ati at yëf bi yokk yokku comme mënu leen ci dara. Hmm. ñaari affaire moo mën a am. ngeen ne ñu mënu leen ngeen génn suñu réew ngeen ne ñu mën nañu indi ay njumtuwaay na armée yi nga na armée yi nga xam ni ñu seq Mali indi ay nit ay troupe ñu indi ay troupe ñu régler affaire u terroriste fii ci ay fan yu gàtt mais mënuloo <laughs> ngeen ne ay terroriste te ñu ci bëri ngeen ne ci euh, bitim réew lañu jóge ñooñu di am ngànnaay bés bu ne mm-hmm. di am carburant di am xaalis di am lu ne di jaar ci seen kanam ba ëpp doole te te mënulu leen leen dara mm-hmm. kon lan ngeen di fi jëriñ laaj boobu il faut ñu laaj ko France mm-hmm. ci sama xalaat bu gàtt ñu dellu si Sénégal élection locale yi la ñuy waaj juróom-benn fan daanaka moo dox sunu digg ak euh, googu wote campagne bi itam ñu toll daanaka euh, ci ay bés bu mujj bi waaye fitna gi moom ba léegi dafa mel ni wàccul yoonam mi ngi ci langue politique bu Sénégal lan nga jàpp ni tey moom la ñu mën a teg comme solution ba fitna jeex ci langue politique bi ndax itam gàllankoor yi muy indi bari na lool. waaw xam nga ci sama gis-gis bu gàtt euh, politique niñ koy defee ci xam nga politique du rek werante ak xastante ak saagante politik ay xalaat la nit ñi di weccante ki gën a rafet xalaat ñu jiital ko mu doxal su fekkente ne doxal na ay fan walla ay weer wala ay at ñu xayma li mu jot def ndax la mu diggee woon ak li mu def méngoo na su méngoowul ñu ñaanal ko jël keneen jox ko mu doxal affaire bi du xuloo du xeex mais léegi li xew ci politique moo di yaa ngi gaaruwaale yaa ngi werante yaa ngi saaga yaa ngi sax sànni ay xeer loolu du lu rafet nit doomu aadama yàlla daf ko may xel pour muy muy muy nàcc di ci génne xalaat yu rafet yoo xam ni suñ ko doxalee askan wi gis ci boppam askan wi gis ci njëriñam léegi nag soo xoolee sax ni campagne yi di doxee nga xam ni yow da circulation bi ay mbër ñooy ñoo ñoo ñoo ñoo nekk circulation bi. Mhm. yor ay oto di klaxonné di di di mbëkk ñi amul doole comme sama compagnie gi la. loolu dafay wone ne am na nu politique tëddee noo xam ne di du woon noonu la waroon doxee te dañ ko jéegaane moo tax mu demee nii ndax gune gu ndaw su toogee xas mag saaga ko wax ko lu ko neex ñu koy rafetlu parce que politique la. loolu moo mooy góomu Sénégal. Hmm. war nañ ko seetaat. kon foofu la fi tàmbalee. yaakaar naa ne jikko yi war nañ ko xoolaat Sénégal jikko yi war nañ ko xoolaat war nañu tabaxaat xam nga dañu amoon nañu fi doon ne sénégalais bu bees war nañ ko hmm. toog waxtaanee xam ban ban sénégalais lañu bëgg ndax nouveau type de sénégalais mooy koo xam ne kii su mag waxee nga weddi ko saago ko ndax boobu lañu bëgg wala dañu bëgg sénégalais boo xam ne bii naa àqam xam na yelefam wante xam na àqu keneen xam yelefam du ko gaañ du ko bojji du ko xas du ko saaga dañuy ànd ñu ñëpp man ko bokk yéene taxaw sunu réew ngir ëllëg. Mhm. ndax itam amul xëy na jubluwaay yu bees wala yeneen yi mbir yu yu yu ne ci politique bi yu askan wi xamul ba waral yenn saa yi gi ndax euh, lu ci bari di nga samp sax aw laaj ne lan moo jar lii lépp élection locale simple maire yi nga xam ne euh, bu jaaree yoon rek xaalis amu fa mu jaral ñenn ñi ñu yegg ci fenn fi euh, loola itam jarul ay laaj ci booba wàll. yu bëri yu bëri yi ngay gis ci làngum politique bi ñuy daw li chômage bu bëri rek. bëri na ñooy gis ñu nekk ci oto yi di daw di kii amuñu xëy su hmm. politique su campagne jotee mooy seen traite ñu ñuy am ay mille francs di am ay cinq mille francs di di tëpp di saaga di nekk ci micro yi di wane seen bopp di am visibilité loolu yëpp dañ ko war a xayma xoolaat ko yenn yi du politique yenn yi pola <laughs> xam nga am na benn mag bu ne woon politique politique <laughs> kon war nañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu toogaay. Mhm. ñu jeexal ak euh, luubal yeeg détournement yi nga xam ni jamono yi moom dafa mel ni moo xew nekk à la ni ñu koy waxee te lu ci bari nag euh, daan du ca am ay dossier la yoo xam ne dañu koy coow rek bu subaa ñu teg ko yëkkati beneen. Euh, ndax mhm. jàpp nga ni ki nu jiite président Macky Sall waxoon ni du aar mhm. kenn ku jaar fu dul foofa daanu rëq sa ndigg am na ci wàll. mooy li ma la doon wax léegi politicien su taxawee dañ koy may ay at su doxalee te deful la mu digee woon war nañ ko woowaat ne ko li nga digee woon kat defoo ko moom président moo fi newoon ne duma aar kenn mm-hmm. wante seetlu nañu ci at yi passé ñu jëlee ko au départ bi mu yëgee nguur gi dafa ne nguur Ablaye Wade daf koy auditer daf koy xayma képp ku ca ñu tëj la mm-hmm. mu indi cour d'enrichissement illicite boobu man de ci li ma xamagum kenn laa gisagum ñu jàpp ko tëj ko condamné ko mooy Karim Wade dégguma keneen newoon nañu am na euh, listu ñaar fukki nit ak juróom liste boobu kenn gisatu ko kenn waxatu ko. ñi ca bari ña nga faree ca nguur ga léegi sax. de euh, euh, loolu mooy point de départ waxuma la donc jàppuñu leen mais ñu bëri ci ñi ñu wax ne ñu nga woon ca liste ba léegi toxu nañu dem ci moom jàmm ne ñooy mu di premier point deuxième point bi ak premier mandat ak bii nii door chaque jour presse bi te loolu mooy rôle am ci démocratie mm-hmm. mu ngi siiwal ay information yoo xam ni jaroon na procureur jël ay dogal woo ay nit laaj leen lii lan la su ko deful Sénégal am na ay institution lu mel ni of nag OFNAC euh, ak yu mel yu demee noonu yoo xam ni moom moo ko fi teg ne leen dee leen càmbar administration bi dee leen càmbar li ñuy di liggéey ay citoyen mën nañu indi ci yéen ay dossier ngeen enquête soo leen enquêté mm-hmm. yéen seen rôle mooy enquêté ngeen jox ko procureur mm-hmm. procureur soo leen ko ko joxee mu jébbal ko yoon ki ñu yilifal OFNAC nee na jo transféré na lu ëpp ñaar fukki dossier wax na ko waxaat ko média yi mm-hmm. siiwal ko waaw dossier yooyu yéeg ba léegi mujjul fenn procureur mu ngi ci dossier yaa ngi ci bureau léegi am na benn discours bu fi président Macky Sall doon def mu ni am na ay dossiers yoo xam ni su ma ba yaakaar ne am na lu mu yàq dama ciy teg sama conc mhm. waaw dossiers yooyu nañu wax mooy yan ngir dalal suñu xel ndax nag su fekkente ne lu waay def du mujj fenn ah ñeneen ñi defagul woon dañuy ñeme def mhm. te loolu mooy góomu Sénégal Sénégal ger gi dafa bëri fo bi dafa bëri da ngay gis nit koo xam ne kii ñun ñëpp xam nañ grille salariale xam nañ ko. Mhm. fii ki fi ëpp salaire man ba mooy xam mbir yi recteur recteur universitaire mooy plafonné ci grille salariale normale bi. Mhm. après ñu créé fi ay agence agence yi fëkk grille grille salariale bi am ay ay ay ay directeurs yoo xam ni danañu am juróomi million ñi am fukki millions ñi am lu ko ëpp mais su fekkente ne loolu yëpp mu ngi am loolu mooy nourrir l'esprit de corruption. Mm -hmm. am na ay fonctionnaires yoo xam ni dañu xam text yi xam ko xam ngoo xam ni lépp lu ñu bëgg ci seen biir defar ay texte defar ay arrêté defar ay décret ngir yokk seen am-am dañ koy def te ñu xam nañ ko. Hmm. mais c'est que réew mi politiciens yi duñu wax yooyu politiciens yi wàccal ma yéeg rek mooy seen discours. nañu génn wàccal ma yëg non nañu teg ay wax yu leer ci ne lii dafa dëng lii dafa dëng lii nañ ko corriger ñi ñi xam. ndax du ñu yëf doxee tam dafa arrangé politiciens yi. ah waaw xam nga loolu. boobaa kii waaj a yéegit bu yéegee la la kii wàcc doon def rek lay def. moo voilà problème mu Sénégal mooy loolu wàcceel ma yéeg soo wàccee su ma yéegee au lieu que ma soppi te loolu du tey la door. depuis mhm. indépendance la ñu waroon a soppi état bi changer ay paradigme am mais defuñu ko gars yi dañu tubaab yi dañu génn rek ñii ñu ñuul toog dugg toog ba ñu toogee ñu gis ne neex na. ku leen ne looy def lii ñu ne la da bañ. <laughs> moo ñu topp ba léegi. Mhm. <laughs> soxna Fatou looloo ñu topp <laughs> leer na ñu ngi gërëm bu baax amoon mbégte dalal la ci matinalu tey bi fàttali ni nekkoon nga ministre nekkoon itam ambassadeur u Sénégal ca bitim réew da ngay itam gëstoo ak ñu ngi lay gërëm bu baax Amadou Tidiane Wane. jërëjëf jàmm